yow da nga bon sutural lu ma ñaar yoy ku ne la nga am nga yobu ci marché ba loolu la tolol ba tax na ngay tam ma ngi door a xam ne nag Cheikh Abdou nugum nugum mo ñame engagement lay ma ñame engagement dugg naa ci guuta go xam yoon ma tok réfléchir de ah, man bi xawma fu may jëlee fi lat lu ne limna ko fi looraa xew kum lëngak ko xamni ba nga xewé ba léegi mosoo xamub sëriñ tey nga tepp tëb na nga ngay di sëriñ waaye pexé du ñak ndax pexem góor gëni joyam aha ok il faut il faut réfléchir nangam nanga was kenkalaay in majet ma bàyyi si rek bàyyi comme que tuuma tuuma gum dugg dugal ma ci tuma guma dug dugal ko ci pexe mi dal moy dem ci dem ci bàyyi si mu bayyi mbam mi nga ne ma eh, nga ublaa la wax duma goor go goo xam damay wax sama jabar di rëll rëll ak man dégg nga li ma la wax bu ma nee benn nga ne ma fukk loolu foko ko ñàkk kersa bay bëgg a dee du lii lañuy wax ci benn jabar bon bay bëgg a dee man sama tëju geeg sama ñàkk sa gi sama yëpp benn jabar ji ma yoroo ma ko yóbbee da ngaa xaw ma da ay gaab xaw ma da bon waaye nag lii la ñuy wax ci benn jabar benn jabar yéen a maase ragalu la wégu la xamul sa daraja xamul sa maqama xamul sa wilaaya du la wax nijaay du la jox añu du wax te joxuñu la bu léttoo daa jëmu xew këram di sol complète bu bokk foo ko fekk day róonali loo liggéey mu lekk lu mu denc lu mu la leb fay loo ko leb da nga fay bu timisé mu fébar bu fajaré mu jaay lo réer ci ngay ndékki ku bon nga ta ay gaf yalla ma yalla musul ci bo ci yow waaye nag li lay dóor a nga ñëw xam laa la wax nga eh bu ma tajalé ga sa joy bon yi nga ma ngi xuy ngej ndef li lay duma nga ñew sa morom la indi muy daagu ci kër ndayam ko la nax acca ay sama xol bu sedd na tey guy ko yene xale bu ndaw daj na jéem ak bu jaay ñàkk kers yàlla la la koy fay ah lu ko yéene ah takk ñaare looy takkee ñaare kers sare mbaam am ci benn jabar mënoo ko ah damay takk ñaare. ñàkk a jóg tey moom sama xol bi sedd na buy def ko rek daa koy gis léegi xale bu ndaw daj na jéem ak gis nga ko def. luut dinaa ko dut gi xamul lu mu nugum nugum def nii yàq na trop bu gisee ya, jànku mbaam rek tàqali ko sagom mu la jànku mbaam meeru mbaam la tuumal loolu yow gaawal yow nu waxtu bu laa xam kañoon gaawal pare nga àggal suuf dëjul dëjul dëjul dëjul dëjul dëjul waaw sama lépp ay daal yor daal jaay juróom laa ci am Ibrahima Pël ma jox yéen ma ne ma loo ci jaay jël juróom waaye daa doxut maa dem fay fekk fa ak soxna su jigéen mooy jigéen gu jigéen laa fekk wax ak moom mu ni ma bëgg ma suppi yow sama nga rafet ma bëgg ma tek dàll fi suuf nga jaay sa mbami juroom juróom-ñaar téeméer boo ko ba mën ko ah. bu baaxé baaxna bu baaxul nga maye nu dugg nag cim tariyaax Cheikh ab di la jël rek di lëmbal defal ndank lu may def ndank Cheikh ab li ngay wax da wuur la moy wuur xana xamone ne saw mi ko fa def fini ni bam aw dilam tojee la dem almagne tëdd fa gisatoo ko senegal defa nga ni man am sama sama yung ak sama dal moy juroomi dërëm dal wala juroomi juróomi dërëm na tay gañu man yow sa mbam bu li ma jàpp ci japp ci ma la adduna bii lijjanti mbaa la jël fa may xaliss lijeenti nañ mu deugar nañ la jël ndaw see bu ñëwee dañ koy dóor man mën a maa wuti ay sunguf ak am naa sama paa jaay ay sunguf ay eh. looraak ay wén ak ay xasum daqaar ak nangam nga jabase boole nogum nogum Cheikh Abdou li ngay wax lépp xam na waaye man ak liif daa farantu ca bopp bi déedéet yow eh bul doon sëriñ buy bind de doonal sëriñ buy sunguf di reen may lijjanti lépp may toj yi may indi may lijjanti may boo feta soo ma ne mm, nga wax ma juri bu ko defee ngay lijjanti naan ay juróom-ñaar fukki junni ay juróom nangam naa lépp da nga ndaw si nee ma léegi ma ay jëkkëram la bëgg ku ko kii nee na la bëgg ku ko ah. kii nee na bu kenn gaañoo na ah, kon xam nga yow moo gën a dox expert laa wax juróom nga dàq fi juróom laa mi xanaa fi ñu doon gëj naa nangam naa léegi nag daal di daay delloo ci Ibrahima Pël nu waxtaane ko maag yow da commencé solo borog dafi tas wulal kurusuk jolombaan mag naa ci waaye nu ni muy demee mooy nag kaay dañuy toog laa xam kajoor de 700000 yu ñëw hmm. lu ma ci déet nu muy demee yow sëriñ si loolu ni ma koy defee man ma yow da ngay jaxas rek këriñ ak lépp may dëbb xoolal mën naa sol sax ñu teg ci kër ku ñëw nga ne ko sa bos na jëm nañ jëm gone fii nan ko yaatali